loolu leer na bon li euh, heure bi nag def nañu te xam naa ne 15 20 minutes nga ma may donc foog ñu baral affaire bi donc yow am na euh, nit ñiy wax ni conseil constitutionnel pour troisième mandat bu euh, bu bu Macky Sall que le conseil constitutionnel valide le troisième mandat depuis donc lan nga mun a wax ci li ni ndax yow yaakaar nga ni en ton à ton âme conscience que yow est que yaakaar nga ne te Macky war na mën a briguer troisième mandat. wala ndax ni ko ñenn ñi njottee day jël maanaam dafay defar ginnaawam daal di dem maanaam xool ku koy wuutu. préparer le terrain à son successeur Mati xam nga man xam man xam man damaa weex man gars du ma man gars yi ñu ma déglu. Uh-huh. Mati. Uh-huh. damaa toog ma ne Sénégal am na deux fichiers électoraux. billaay wax nga ko avant élection yi. Uh-huh. kenn dégluwu ma. ma ne leen Ablaye Macky Sall dina gagné élection yi premier tour. affaire yaa ngi ci vidéo affaire yaa ngi ci internet bi sama déclaration bi ci internet bi mm-hmm. kenn dégluwuma mm-hmm. je reviens aujourd'hui pour vous dire que Macky va déposer pour se présenter en deux mille vingt quatre il va déposer sa candidature yéen a une nuance uh-huh. entre déposer et valider le dépôt revient au candidat la validation revient au conseil constitutionnel ku mu neex mën nga déposer mm-hmm. élection présidentielle pour pour remplir les conditions mën nga déposer mais c'est le conseil constitutionnel qui valide les candidatures. waaw mais conseil constitutionnel boobu waaw. man day man day man day xoolal man de dama lire la décision. Mm-hmm. bu 2016 bi conseil constitutionnel génne. Mm-hmm. bi ko Macky bindee le 15 janvier 2016 pour laaj ko. Mm-hmm. est-ce que mën na kii xoolee ci décision boobu. sur le point 30. gis naa le conseil constitutionnel bind ni. le mandat en cours est hors de portée. de la nouvelle loi. ma jàpp ca ni. mandat en cours bi ma ci des bu deux bu septembre bu njëkk ba conseil constitutionnel daf ko écarté. après lire naa ay ay juristes wax le contraire de ce que j'ai dit mais tam lire naa une contribution du professeur Blanque qui a confirmé ce que j'ai dit. waaw ouais, mais comme maintenant le débat. waaw waaw le débat c'est quoi. Mhm. ans sept ans. est-ce que le mandat consécutif de deux mandats cinq ans consécutifs cest dire que cinq ans et cinq ans et le professeur Zouanko il a dit bu fekkoon le président de la République conseil constitutionnel wàññi wàññi mandat ba cinq ans en 2016 bu Macky amaatee cinq ans 2019 2024 day nekk deux mandats de cinq ans consécutifs mm-hmm. ah ouais, c'est un débat de c'est un débat d'experts mais toujours est que man li ma yëg ci information bi ma am te ma am ko ci nga ko nga xamante nii wax musuma wax lu dul deñ mhm. moo de Macky va déposer sa candidature pour élection présidentielle bu deux mille vingt quatre. waaw léegi nag foofu laa bëgg ñu wax naa ko ne keroog xoolal wax naa ko keroog. waaw benn waay ni boo demee pouvoir bi moo ko yónni pour mu wax lool xam nga Sénégal dafa bëgg ay dof comme Paul genre Paulus nee na parce que Paulus Mbaye nee na dëkk bi. la ah. ñu mën a wax waxi dof. <laughs> moom waxi dof. waaw te ñoo bëgg waxi dof loolu loolu loolu loolu man dama ci débat. seul l'essentiel est que man mm. je parle à mon intime conviction ak information yi ma am ba fii moment bii may wax ak yow ci jour bii ci mois de décembre bii ma taxaw sama biir kër di wax ak yow Mati information yi ma am moo de Macky va se présenter encore une fois léegi rapport de force le rapport de force mm-hmm. mm-hmm. mu reculer Mm-hmm. les données vont changer. su fekkee en face de lui xam na ne bu defee rapport de force il va remporter il va forcer parce que Macky depuis 2012 lépp lu mu mos a bëgg def def na ko. gars yi dañuy yuuxu. Mm-hmm. wuy wuy Karim Wade duñ ko fi tëj buñ ko tëjee ñu taal dëkk bi tëj na ko. foofu laa ñu ñëw buñ ko tëjee taal dëkk bi tëj na ko. parrainage bu amee ñu taal dëkk bi parrainage am na. bu jàllee premier tour ñu taal dëkk bi jàll na premier tour. mais voilà foofu laa bëggoon ñëw transition la sax pour ñu ñëw ci justement opposition bi ak euh, contexte politique actuel bi parce que man mi si sa sama bopp euh, je pense que j'en ai parlé j'en ai parlé ci ay live personnellement ci biir euh, élection bi j'avais très peur parce que ay nit dañ ma daan hmm. woo off the record des gens yi nekk ci opposition bi ne ma Macky Sall bu bu maanaam bu sàccee élection dinañ taal Sénégal dinañ def lii ak lii ak lii man j'avais peur mais ba ma tel a été ma surprise bugguma nag Sénégal tàkk xam nga mais juste au moins je pensais que nit ñi dinañ génn sax def sitting voilà pour que opinion nationale internationale jàpp ne d'accord ci élection mais dara yëngul dara yëngul kenn génnul lépp ne serew léegi nag mais mais mais. waaw waaw léegi nag man li ma la doon laaj mooy euh, nee nga bu amee rapport de force mais rapport de force boobu opposition est-ce que am na doole googu instant bi nii xam nañ ne Idi euh, léegi yaa euh, euh, réew mi ak APR xam nga mburu ak soow mais ci biir opposition dafa am opposition ci biir opposition bi est-ce que. rapport de force boobu est-ce que war na mun a am. waaw non xam nga Macky. Mhm. Macky ak Idrissa mburu ak soow. Mhm. waaye tamit Khalifa. Mhm. Decroix. Sonko. ak ñoom Abdoul Mbaye Thiakri. <laughs> waaw c'est vrai bëgg naa bëggoon naa sax. parce que parce que wuyu ma xam nga gars yi xam nga analyse gars yi bu ñu analyse da ngay analyser d'un côté comme de l'autre ñu Macky ak Idrissa ñu ngi diil waaye Sonko ak gars yeneen gars yi ñu diil ay dealer lañu. Ah, benn ñaar benn ñaar xoola benn ñaar moi j'ai la chance. da da d'avoir fréquenté les opposants actuels. Mhm. certains qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir. Mhm. man awma sens interdit ñoom ñëpp laa xam toog naa ci ay milieu réunion stratégique. pour jàkkaarloo ak Macky. le problème xam nga lan la. gars yi ànduñu. opposition bi. ànd de ànd xoolal union unité de façade la nii. taxaw ci caméra caméra yi xoolal toujours booy gisee xoolal toujours bu ñuy bu ñuy bu ñuy def réunion ñoom. bàyyi ci xel dégg nga bu ñuy def réunion ñoom ah. excuse nga bu ñuy def bu ñuy def réunion ñoom ah. waaw. wala allo. kii woote toujours bu ñu def réunion. waaw. bu ñu defee ñoom même bu photographe presse bi ñu war a photowu mhm. dañuy gis ñuy buuxante pour kuy taxaw ci kanam c' est un signal bu mhm. pour important c' un détail mais un important pour voir la le caractère et la personnalité et chacun son envie de de de, de s'afficher et d'être devant angélique mhm. qu'ils ne sont pas ensemble d' ailleurs actuellement y a l'opposition qui est en train d'être pouletée par Khalifa Sall et de l'autre côté y a y a l'autre de de de de de de Thierno Mm-hmm. waaw c' est vrai que y' a y' a. waaw ça c' est Sonko ak yëpp d' côté. yaa a également. waaw euh, euh, Abdoul Mbaye tamit Thierno Alassane Sall de notre côté. mais maanaam bu bu bu APR ak réew mi di di Mburok opposition ñoom ñi ngi caakri ku nekk nag yaa ngi. caakri ñi ngi mm-hmm. waaw ku nekk nag yaa ngi seet noo defee sa affaire pour jàkkaarloo waa ji mais le problème fondamental xam Euh, euh, euh, Mati. je pense que Sénégal bu tolloos bu amee fu mu toll ci réew mi ci wàllu métit ci wàllu mer gouvernance ci wàllu frustration ci wàllu échec dans les politiques publiques nit ñi mer ku ne nit ñi sonn xale yi di dugg ci gaal gi di dem jigéen ñi sonn école yi tëj abri provisoire yi le système électoral le système éducatif est perturbé à l'université sur le plan social jigéen ñi ñëpp sonn ñëpp di ko wax Mm-hmm. opposition bi tey jii te loolu du léegi. Mm-hmm. bu fekkee opposition bi ñoo xooluñu sénégalais yi ni ñu sonnee ñu jéem a ku ne fàtte sa bopp. Mm-hmm. jiital intérêt Sénégal. duñ du ñu mus a ànd. parce que du ñu waxante dëgg entre ñoom. réew mi intéressé wu leen te je parle de l'opposition et je parle du pouvoir. je parle de la classe politique en général réew mi intéressé leen seen bopp moo leen intéressé. Mm-hmm. seen bopp moo leen int muy ñu ànd ak muy ñu nekk ci opposition ñoom ñëpp seen bopp moo leen intéressé. Mm-hmm. ndax tey jii bu fekkee xool nañu sénégalais ni ñu sonne ku ne war mën a sot fa pàtte sa bopp nga jël intérêt Sénégal nga teg comme en 2017. na ma waxoon ne Idr Macky Sall daanu woon na en 2017 bu fekkoon gars yi nañu pour jëf bokk ndey bokk bay def benn tête de mm-hmm. ku yëg baax na. nañ jël sax muut baal parce que maa ngi àndoon Ban def ko tëdd liste wala nañ jël sax def ko wax def ko tëdd liste l' essentiel est que la liste de l'opposition da gagné Macky en 2017 mm. mais ils l'ont pas fait seen biir la ñuy nekk di xeexoo di xeexoo te ils vont reprendre mm. Ablaye Wade rek moo réussir ñu booloo ñëpp te booba gars yi dañ ko jëli ba léegi nii y a des contradictions internes Abdoul Mbaye bu toogee ak waa PDS da leen di xiiroo da ngaa koy xoolee ne moom moo tëj Karim Wade Abdoul Mbaye daaw danañ am problème pour toog ak Idrissa Seck parce que amoon nañ ay problème ñu ñaar bu def bi sànnante xeer yaa ngi comprendre waa waa euh, euh, Khalifa Sall il avait des problèmes avec les les libéraux depuis mu nekkoon jeunesse socialiste y a des contradictions politiques internes anciennes qui reviennent toujours en surface waaw lu tax monde tere des fois bu ñu toogee nii wax nii nii rek après bu ko nekk delloo sa kër ku nekk da nga taw waaye yow man kii naa topp ci ginnaaw kii lu mu représenté kii lii kii lii yooyu moo am seen biir. waaw mais mais mais. je suis désolé et puis et puis et puis le boo ko waxee ñu mere la. te ñoom xam nañu ni loolu moo am seen biir et tant que jé jéemu ñu def nag ku nekk jéemul fàtte sa bopp jiital réew mi jéemu def benn benn benn son. Mm-hmm. yoora. toujours des problèmes et Macky va surfer sur les contradictions C'est ça, divergence yooyu moom il va surfer sur ça xam nga je pense que moom élection présidentielle sax euh, loolu moom moo gën a yàqal euh, également opposition bi bon on avait aussi lâché une bombe parce que gis naa aussi waa Pastef ñu ngi fii ci biir gars yi nag oh, oh, dafa mel ni voilà ñoom ñoom mut baan dafa lañ xaw a dérangé nee nañ yow yow bëgg a pousser Ousmane Sonko pour mu dugg euh, kaso mati mati mati. waaw xam nga Pastef le P de Pastef mooy turu Pawlish Pastef le P mooy Pawlish ñoom waxi dof rek. waal Pastef Ousmane mooy mooy mooy Pawlish Mbaye waxi dof man naka laa mën a pousser Ousmane Sonko mu dugg kaso. Mhm. Ousmane Sonko buy dugg kaso gémmiñ ñoom moo koy dugal kaso man du man. Mhm. man bi may jóg di jóg wàcc ci dëkk bi fii xoolal di ñafe jàkkaarloog Macky Sall mu dem ak woo dikk. bëgg yóbbu kaso parce que j'avais dit que y avait des cartes électeurs au ministère de l'intérieur fu Sonko nekkoon. Mhm. waaw parce que xam nga laay bañ xam nga laay bañ. Sénégal li ko yàq mooy far. Mhm. fii koo fi tudd sëriñam mu mer. Mhm. même bu même bu fekkee sëriñam dafa ay ay centre de recasement yom te normalul boo ko waxee ñu mere la. fi tudd éditeur politique mu mere la. fi tudd équipe nawetaan tam mu mere la. mais naka lay doxee nañ jël intérêt Sénégal teg ko te bàyyi waaw mais mais xam nga. je le dérange parce que à chaque fois s'il ment je le contredis. waaw c'est quand même euh, de même titre que le pouvoir. mooy Macky Sall si Macky Sall moi je le contredis. waaw ñëpp. waaw mais parce que wu ma leen. waaw mais parce que comprendre nga. waaw mais parce que gars yi bu bu ñu waxee ne par exemple Ousmane Sonko jël na 10 millions euh, euh, Karim Wade ci élection yi wala ñu ne par exemple Thierno Alassane Sall euh, mbirum ci li tax mu génn gouvernement bi ba signé woon na depuis Paris gars yi jàpp nañ ne loolu dafay aussi da ngay da ngay affaiblir opposition bi. wala ndax sa rôle. waaw mais mais mais eh, mais wuy ma. ci laa waxee woon tam ne Macky Sall deux fichiers la waaw waaw waaw ci kii. ci laa porte plainte Aliou Sall ci ci compagnie aérienne bi mu créé woon Sahel aviation man maa dem OFNAC porte plainte Aliou Sall Sahel aviation bi mu créé compagnie bi ñu woo ma entendre j'ai été entendu par l'Assemblée nationale dans l'affaire des 94 milliards j'ai été entendu par le juge d'instruction dans l'affaire dans l'affaire Petrotim. Mm-hmm. et tout ça ne le disent pas. ils ne le disent pas. Mm-hmm. ils mm-hmm. de tout ok man ma liggéey man li ma liggéey man li ma liggéeyal opposition bi. li ma liggéeyal Sénégal de avec à travers ma presse et mon engagement à travers mon mouvement de soutien Sonko ne l'a pas fait. Sonko qu'il fait toute sa stratégie c'est le mensonge il est comme les gens du pouvoir et je voudrais que les Sénégalais ñu ubbi seen ay mm-hmm. cette classe politique là amul messi c'est pas ces gens là qui vont régler le problème du Sénégal. Mm-hmm. ok ñoom ñëpp nag mm-hmm. très important. Mm-hmm. tournant bi actuellement dafa am importance parce que actuellement on est on est on par la Covid 19. Mm-hmm. waaw tey jii muy tey avec Macky Sall wala ëllëg bu Sonko nekkoon président de la République fekk ñun ñëpp ànduñu. Mm-hmm. jàppale ko pour que mu réussir du mës réussir dans sa vie parce qu'il y a trop de contradictions dans la classe politique. il ne s'apprécie pas il ne s'aime et je parle de du côté du pouvoir de l'opposition Mm-hmm. et ñu jël le ñu jël le Sénégal teg ko suñu kanam dëkk bi dafa métti les gens sont fatigués nañ bàyyi ce discours de personne ay diw ay diw ay diw ay diw ay diw il faut que ça cesse et que ñuy jël suñu discours di ci wax Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. waaw euh, mais dernière question euh, balaa ñuy euh, jël également suñu beneen invité mooy gars yi bëri laaj nañu ko nee